loolu waaye un intérêt direct. Hmm. soo gisee ñu ñu nii rek ñuy wax loolu. mais nañ am bon fois rek ci. la preuve ma jox benn exemple. Hmm. keroog fi keroog dans le dossier Ousmane Sonko lorsque le juge Hippolyte Faye Hippolyte euh, comment dire Ndeye hmm. devait juger il s'est auto autodésaisi de dossier pourquoi parce que sa sœur et membre du gouvernement ministre de la République donc xam nga loolu déjà loolu mooy mooy attitude d'un juge c'est-à-dire que yow le le code le statut des le code de procédure pénale de procédure civile ak pénale yépp en matière en matière de yooyu soo gisee soo gisee ñu def yooyu xaar xaar rek soo gisee def yooyu parce par parloo am ci très bien bi yeewoo même fa kër même kër que conseiller que conseiller municipal que adjoint au maire de Sonko on il pour mu trancher question électorale bi nga xamante ne

avant l'audience mhm. avant début des plaidoiries devant début discussion yi mhm. donc lui il a fait en pleine audience en plein cours d'audience mhm. il a soulevé mais c'était manifestement pas possible ah, vice de forme la quoi mënu loolu loolu xam prospérer donc euh, il a jugé nécessaire de ne pas le faire et d'autant plus pas la peine de le faire parce que si le, la Cour suprême va nécessairement la wax nécessairement raser cette décision parce qu'elle n'est pas ah oui, mais oui mais ça c'est un pronostic non mais man dama ko xam parce que c'est pourquoi non mais mais bu dee fële bu dee ay juriste dafa nekk mais xam nga décision ce sont des magistrats. man de si ñoom ñooy jël décision yow. mënuloo en droit oui en droit bien sûr. en droit en vous pur êtes, droit vous êtes avocat vous avez. ma ne la en pur droit de l'État. ay avocats ñoom ñooy dem comme comme yow. avocats yi avocats yi Ousmane Sonko seen bopp xam nañ ne que décision bi bu demee dañ koy raser. Ah parce oui. qu'elle n'est pas fondée en droit pour plusieurs raisons. Pourquoi? mais pourquoi mais radiation bi le juge un le juge wax naa leen le juge bi il ne pouvait pas juger cette affaire. et là mu leen woo seen bopp xam ngeen très bien que. bu doon yow bu ko doon jugé wala yow mii day faatu doo leen juger affaire bi. parce que votre frère bi nga bi yeewoo ci yow ci même kër gi. a les mêmes intérêts que ki ngay attiré loolu un monsieur le ministre yow juriste nga contumace yaa ngi dugg beneen débat. ah moo waral coow li di. yaa ngi dugg beneen débat. Mhm. bon décision Ziguinchor moom un juge bi amul droit juger ko. Mhm. deuxièmement le recours est tardif. ils l'ont fait un mois après. décision mhm. bi te alors que largement. largement parce que ñoom lan wax ne ñoom jot jot notification. te ah pourtant huissier bi dem nañ jox leen ko ñu bañ ko jël yóbbu ci cabinet d'avocat bi avocat bañ ko jël yóbbu ko Sonko Sonko bañ ko jël. mais da soit. ils n'ont pas reçu notification parce que délai bi commence à courir à compter de la notification wala en droit lu ñuy woowee la théorie de la connaissance acquise jotoon notification wante yëg ne décision bi am na parce que ñoom ils ont fait recours le parce que recours bi décision am 30 août ñoom ils ont fait recours le septembre à la CEDEAO seen recours boobu dañ ci wax na ñoom yëg nañ ne que le 30 août DGE génne ne leen ci liste bi donc ils ont violé leur droit à participer à des élections donc à partir du au moins au moins à partir du septembre les avocats d'Ousmane Sonko comme Ousmane Sonko xamoon na ne génn nañ ko génn na ci liste bi donc il avait que jusqu'au septembre pour def recours defu ko il l'a fait le 4 octobre ce qu'on appelle la théorie de la connaissance acquise te loolu du deñ loolu juge yi Cour suprême c'est des magistrats chevronnés qui ont fait 30 ans, ah, 40 ans, 40 ans de bar. parce que mais j'ai le droit. vous dites que vous oui vous parlez. droit laay wax de droit laay wax. xam nga xam nga monsieur le ministre bu la neexee nga ne nga ne nga ne c'est c'est c'est l'avocat qui parle euh, l'ancien agent judiciaire de l'État mais également membre de la mouvance présidentielle membre de l'APR. boo xam ne dafa am coloration politique mënuloo def un procès. boo xamante ne de de de ah. wax ma fi droit. fii mosoon naa fi taxaw fii si plateau bi wax ne en matière diffamation la pose de Ousmane Sonko sera condamnée gars naan woy ministre de République mi ngi anticiper mais parce mais wax parce droit. c'est le droit. mais mais pourquoi fii dossier bi ma la wax li ma la wax nii du deñ. mais mais mais bu dee droit lañ appliqué mais cour suprême kon suñ ko débouté ñii njort ne kon li tax Sénat bañ a exécuter décision wu juge bi ba wax ne y a pas de décision définitive kon ñoom it dafa am lu ñu leen day ne bu demee foofu dañ koy débouté. non non non waaw DG moom. Mm. c'est administration. Mm-hmm. si décision définitive ñoo ne si ko taabalam daf koy exécuter ak nu mu munti mel. DG amul possibilité bañ a exécuter décision de justice. et cette procédure bi ñuy def ci Sénat nag boobu bu aboutiré ñu jox leen fa dëgg nag. mais xam nga loolu mooy jox Sénat rôle bu mu amul. Ah ñoom avocat yi seen bopp mais mais Sénat Sénat n'est pas mm, mm, mm, le ministre. le Sénat. non c'est eux qui ñoom dafa war a leer Sénat article 11 du code électoral.

c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ça son son ses attributions non non. Mhm. nga xam nañ ko tëddee pourquoi pourquoi l'a pas fait depuis longtemps. bu bu ñu leen déggee maanaam kat lan ngeen di craindre pour que Ousmane Sonko puisse participer à cette élection présidentielle. xam nga bu ñu parce que bu ñu jógee fii dem ci beneen nëgg sërëx bu ñu jógee waatee fii. non mais jox ñu verdict boo xamante ne ñëwagul ak li fi jot a am ci ay àqam ak yelleefam yoo xamante ne euh, dañu. yenn saa yi ñu nësëxal ko mais man déjà suñu wax waxu justice. waaw parce que DGE def jox na Karim Wade fiche de parrainage jox ko Khalifa Sall et pourtant dañu leen radié woon ci ci liste électorale terewul jox nañ leen ko. ko. DG est-ce que ça donne pas raison c'est pour que Ousmane Sonko bañ a nekk. candidat bañ de parrainage. DG fiche de parrainage day ko ku ñëw jël ku ñëw jël ku ñëw jël dem non est-ce que un mineur de 12 ans bu ñëwee jox la ma fiche de parrainage je suis candidat à l'élection présidentielle dañ koy jox est-ce que un mineur de 12 ans sa doom bu am ñëw taxaw ne jox la ma fiche. ci candidat à l'élection présidentielle est-ce que DG ko jox parce que il n'est pas inscrit sur les listes DGE c'est DGE c'est une administration technique. ñëw nga ut mandat xaar ñu vérifier échéance si foo dëkk adresse numéro carte dugal xool est-ce que nekkoo ci. monsieur nekkuloo nga doon wax sànq Sénat Sénat est obligatoirement présente à tous les niveaux de conception. d'organisation, de prise de déclaration et d'élection, oui. depuis l'inscription sur les électorales jusqu'à la proclamation provisoire des résultats. Article 6. non ma ne la ma amul donc am am na un pouvoir monsieur le ministre. non non. de l'inscription jusqu'à la proclamation provisoire des résultats. quand y a quand vous mettez une précision d'ouverture du fichier par exemple ne bon élection war na am telle date on doit ouvrir le fichier pour que ñi ñi mën a inscrire. c'est sur les sur bien sûr. oui en tant qu'observateur. mais le contentieux là le contentieux de l'inscription d'une personne ou non. pourquoi pourquoi pourquoi les avocats de son de de de kii là de Karim Wade n'avaient pas fait de recours à l'époque pas, pas seulement en tant qu'observateur mais aussi prise de décision non ma la c'est article 6 ma ne la n'a pas de compétence dans en matière de contentieux de l'inscription d'un d'un d'un individu sur la liste amul compétence boobu pourquoi comme Karim Wade dafa ko woon à l'époque bu nekkee Qatar ne dafa inscrire kay ne non non vous pas vous inscrire pourquoi ne pas saisir la Sénat ñoom pourquoi ñu xaar ba léegi ñoom. mais parce que Karim ñu ko e, mu différente de l'attitude bi mu am ci Ousmane Sonko. waaw ma ne avec ses fiches de parrainage. de pourquoi ñu xaar ba léegi pourquoi ñu xaar ba léegi. conseil constitutionnel moom moo leen moom moo leen validé lu seen candidature. waaw non pourquoi xaar ba léegi di saisir pourquoi pourquoi ñu dem ba Ziguinchor di saisir juge bi mais mhm. ça ça ça veut tout dire ñu ñëw ci beneen fait d'actualité wax ñu cërale ci candidat yeneen yi nga xam ne fu ñu dem ci caravane bëgg a def seen activité politique ñu tere leen ko au moment où seen candidat yéen mu ngi dérouler mu ngi doxantu mu ngi def ay mobilisation monsieur le ministre loolu est-ce que du recul démocratique quand même en 2023 mais non mais non xam nga euh, ñu bëgg dañu jaawale mbir mhm. cest à yow tout le monde sait boo amee activité politique dans une localité. mais da nga war a informer les autorités administratives. Mhm. da war a informer. loolu c'est le minimum c'est même une déclaration simple déclaration voilà je viens à Louga am naa fa caravane de telle heure à telle heure fii ak fii laay jëm je fais la déclaration à la préfecture. Mhm. préfecture xam ko et puis ñu jël seen matuwaay pour au cas où il y a des incidents ak yooyu yëpp ñu mën ñu mën ko prévenir. mais da ngay ñëw ak sa cortège ak say militants euh, di balader wu comme ça dans les rues di bloquer circulation bi di di sans que ñu xam sax sa itinéraire c'est quoi ton temps de séjour c'est quoi. c'est pas mais gis ñu bloquer. non euh, euh, man def naa man man j'ai fait tour du pays man en tant que ministre def naa tour du pays dans Sénégal Connect. fait le tour de de de de de tout le Sénégal. mais fu ma dem balaa ma dépassé au moins un mois avance chaque gouverneur chaque préfet avait déjà l'itinéraire que j'allais suivre avec les caravaniers ak les ak qu'il fallait faire ils étaient informés de tout le circuit loolu c'est même c'est une élégance républicaine. mais Sénégal c'est pas un désordre doo ñëw rek yow say oto bloc circulation dugg ci dëkk mais non attention. parce que ñun tey jii on n'a pas peur ah du tout contrairement ñu foog ni ñuy wax naan way ay bloqué ñii di bàyyi seen candidat muy kii ñun on a le meilleur on a on passera au premier tour ça on le sait. bàyyi leen kon ñeneen ñi dem ci askan wi mais au moins nañ déclarer rek. Mhm. nañ informer laaj leen kenn si ñoom du la génneel une seule lettre. adressé à un préfet ou à un gouverneur pour informer de leur présence dans localité yi day wut informer les autorités administratives. mais bien bien sûr boo xoolee sax boo xoolee dem rek ak Louga on a vu les autorités administratives qui étaient même présentes parce que gis nañu effectivement la présence de de tout parce que a il a une double casquette. <laughs> celle de premier ministre et celle de candidat de la majorité tamit. waaw en tout cas. moo tax autorité administrative yi. waaw ah, mais en tout cas avec quel pied danser. moom fépp muy dem il suñu candidat fépp mi dem day informé. loolu nag pourquoi lii li ko war moom en tant que premier ministre mu a informer pourquoi yow euh, su fekkee dafay informé euh, Ndeye Fatou wax na ko léegi euh, c'est le candidat de Benno Bokk Yaakaar également premier ministre muy ñaari casquette yoo xam ne yor na ko mais tournée économique yi ay tournée économique aux allures de campagne électorale la tournée économique boo xamante ne nit ñi dañu gise ak yow ñii di la jox ay carte ñii di la présenter les responsables politiques tournée économique lu muy def ci kër euh, sëriñu sëriñu dëkk ba gise ak moom kooku euh, daanaka euh, wax la sax li nga xam ne mooy mettitu mettitu sénégalais yi est-ce que kooku nga nangul ko ko bañal ko Malick Gakou bañal ko Bougane Khalifa Sall am non et puis des fois sax est-ce que loolu aussi du nekk du deux poids deux mesures monsieur ah, le ministre sénégalais leen xañ seen premier ministre quand même sénégalais mën nga leen xañ Sénégalais qui sont dans ñoom ñoom premier ministre rarement dañ koy gis. bu ñu amee occasion. en un occasion quatre mois pour lui pas besoin de le tour Sénégal. Ah nous travaillons pour lui oui nous travaillons pour lui. les équipes sont sur place bu dee ñu ngi si di ko liggéeyal pour pour pour élection bii di ñëw loolu c'est pas une difficulté mais par contre Sénégalais yi nañ droit quand même jàkkaarloog premier ministre waxtaan moom wax wax leen gëstu bu baax ñu bëri dañu naan dañ leen tere dugg tel dëkk pour pour ut bës rek. dañu ah ñëw taxaw fii benn policier bu nekk à l'entrée de la ville bu taxawee na leen ma contrôler foo leen jëm nga ngeen def seen vidéo taxaw naan woy on interdit d'accéder à telle parce que c'est pas normal c'est pas la démocratie manipuler encore manipuler population bi alors que benn policier moo la laaj yow foo la foo monsieur foo jëm loolu rek ñu gis ñi ñuy ñuy manipuler. parce que Sénégal kam y' a 200 candidats. oui ana 200 on n'avait pas vu ça le président de la République à Macky n'avait pas peut-être wala boog euh, yaakaaruma ne amoon na ay autorisation bi muy def le tour du Sénégal. entre 2012 il informé bu informé moom Abdoulaye Wade yaa ngi wax élégance républicaine kiy jiite wala boog ñi nekk jiite dañu war a am élégance boobu. Ah, ah, face quand ci ñi nga xam ne ñoom la ñu jàkkaar loolu. Ah, ñu mën a dem seet ay ñoom ça leur coûte quoi booy nga ne yow da nit boo ñëwee di am embouteillage di am yaa am risque de débordement naa nit lool maa ñëw tel dëkk à telle heure telle heure tel je de temps de jour loolu yàqal dara Mhm. en réalité c'est c'est c'est virtuel dañuy bëgg a créer ay buzz rek ah Malika ko moom franchement mun na ñëw wërsëg su ko neexee ah, franchement kooku y' a pas de problème dañoo doxantu foofu bon. Mm. dañu intestine te ay membre APR kese ñoo ko. seet loolu c'est comme ça une grande famille noonu la. am ay doom baay am kii donc day xaw a compliqué des fois. et mm. politique aussi c'est de la compétition. politique képp ki politique bëgg nga ci am avancement. képp ki politique ak ko mënti doon ah, muy le jeune militant ba le grand leader képp ki politique bëgg nga avancer gën a am mbooloo ñu gën la ci gis gën la ci xàmmee gën la ci ràññee. alors te foo gis compétition rek forcément forcément ah, day am ay divergence man wurso gi man ma wurso gi man wurso fi fekk. waaw ci la situation sanitaire du détenu Ousmane Sonko gis nga euh, lettre bi avocat maître Ciré Clédor daal di génne ne moom état du Sénégal am na maintenant obligation bàyyi ko mu ñibbi parce que état de santé am permettre ko ñu koy continuer di téye foofu. man la lay laaj. Mhm. soo fekkee ngeen fàttaliku ko Ousmane Sonko bi nga jàppee fii bu mu waroon dem tribunal pour juge pour ñu juger ko. Mhm. Philippe taxaw ne dañ ko empoisonné les résultats nee nañ yónnee nañ ko à l'étranger un an ñu ngi xaar un an ba ñu ngi xaar son avocat bi bind tey jii nii ñëpp xam nañ dans quelles conditions la génnee Sénégal il est quasiment sorti ici mourant tey moom la dégg tey jii mooy dem di wax tey ñu ne dafa am grève de la fin suba ñu ne il mourant tout ça c'est de la manipulation Mhm. c'est de la manipulation moi je n'y crois pas il ne fait ni mhm. grève de la faim grève grève il ne fait ni grève de la faim il n'est pas malade il ah, est sain et sauf mhm. sénégalais nag sénégalais la il y a des avocats qui ont les droits de faire des procédures pour demander sa liberté provisoire loolu loi moo leen ko may loolu ils n'ont qu'à utiliser ces procédures là mais sénégalais ñun sénégalais nañu bàyyi tranquillement mëntuñu wax ñoom lu ñu mën a gëm ñun parce que dafa bëri ay fee yu bëri fi jaar ba léegi ñun lañ ciy xaar nañu wax résultat yi fu mu nekk résultat yi empoisonnement Ousmane Sonko boobu parce que empoisonnement dafa empoisonnement dafa grave ah loolu quand même.

maître Moussa Bocar Thiam jëriñ ñu dénk wàllu communication télécommunication ak numérique ñu maa ngi lay gërëm di la sant di di ñi si seetaan yëpp di baalu àq aussi fekkee am na lu ma waxoon ma xamante am na ñu mu blessé surtout ma sama mbokki opposants yi boo waxee rek am na ñu commencé xam naa xaw a perturbé wu mais c'est le débat politique c'est le débat nii nii Sénégal war a mën doxee. waxtaan débattre di euh, féliciter aussi waa sama sama waa parti waa APR waa Benno Bokk Yaakaar di encourager suñu candidat di ko wax mu kóol na ci liggéey bu solo bu muy def. sénégalais yi yaakaar nañ ko parce que tey jii sur les deux cent candidats yu ñu gis moom rek lañ gis koo xamante ne vraiment il rassure les sénégalais. alors très boobu man man man man ñaan yi. élection présidentielle bii di bi moom ñoo nañ nañu tànn koo xamante moo baax ci réew mi moo baax ci réew mi laa wax. monsieur le ministre de la communication.